donc dépensé nañ 89 mënuñoo fexe ba wane ne dépensé nañ 89 millions te loola la fa xew ak 89 millions dafa mel ni aw aw sànq te ah, mu ne. Euh, euh, directeur bi. nee na léegi entendre ñu kenn déglu ko. Ah, te ensuite amul rapport contradictoire loola président. da ko wax wala xamu ko. Ah, wala boog day tey teylu te bu ko defee di xam ko di tey teylu nag ci président rek c'est très très grave nga yoon wi tëral of nag uh-huh. rapport contradictoire am na waaye ni ñu koy defee ci inspection générale du benn xam nga nu ñu bu uh-huh. na ko sénégalais yi li Cheikh Anne di wax bu ma doon mbokkam uh-huh. wala may xaritam wala may sëriñam ma ne ko dëjël si gim parce que waxi kasaw kasaw lay wax ko nga of nag bu ñu ñëw mission la chef de mission bu ànd ñett bu ñu naan kooku nañ dellu ci tur. waaw Kébé parce que loolu c'est très grave. li ma ci leen ni ci dégg. Mm. bu ñu ñëw dañ naan Aïssatou Diouf Fall nee nañu ba fi président ñëw na def nga nangam def nga nangam def nga nangam def nga lu ci saxalaat mm. bind ko jox la. Mm-hmm. nga tontu. Mm-hmm. sa xol mm-hmm. nga tontu. ñu liir ba mu pare ne yaa ko wax nga ne waaw ñu jàll ci ñaareelu question. nangam nangam nangam nangam nangam nangam lu ci salaat nga tontu. ba mu jeex ñu jàngaat ba question yi jeex mu juróom-ñaar wala juróom-ñetti question mm-hmm. dana am laaj yoo xam ne sax danañ la ko te laajaat neneen. Mm-hmm. léeg-léeg ci la ñuy xam ne lii nga wax. waxu du dëgg dañ lay yóbbu ba la ne yow lii nga wax du dëgg. Mm-hmm. bu jeexee procès verbal ba la yor. loo xam ne yaa ko bind de. kenn waxul la ko ñu liiral la ko d' accord nga ne waaw nga bind Aïssatou Diop Fall. Dakar la nangam. nga signé ñu def cachet. Mm-hmm. loolu de moom. loolay procé nga procédure bu yooyu. Mm. la ñuy boole dajale ko. foofu moom contradiction am na fa. jox ko pré jox ko président loolu lay wax loolu kon amul wante. Mm-hmm. Mm-hmm. jox ko président OFNAC. Mm. président OFNAC jàng ko ko. jox ko vice am booba vice président am Jean Bonféné. ku woon xam ko jox comité de lecture. ñu lire bu ñu paree documents yëpp ñu jox ko. ma loolu tam am na solo am na fukk ñaar yoo xam ne président rek moo leen di nommé. ñooy nekk membre de l'OFNAC nag. mooy jël décret nommé fukk ñaar ñu ko neex. ñooy def assemblée générale fukk ñaar yooyu. ñu fab dossier ku ca ñu jox la ca benn. nga yor ba mu yor ko ba kii ba jàng. ñu def assemblée générale. délibéré ku ca ne nga wax sa xalaat. lii ñu jiñ ci xaw ma am àndu ci seen xalaat bu ci deux tiers yi d'accord ñu ne ah kii kat nañ ko jébbal procureur de la République. bu ko defee ñu def euh, président def rapport bi koy accompagner ak procès-verbaux yooyu yëpp. ñu boole ko muy dossier ba. ñu yóbbu ko teg ko ci loxoy procureur de la République du jaar sax ci ci président de la République. noonu yi la demee. mais procureur boobu bu ko neexee mooy mooy auto mooy mooy def li ci war wala ou pas. non procureur. daf ci da ko war a def. procureur ko bu ñu ko doon dafa war a. mais su ko xaar ba da euh, war a traité après traité bu ko doon juge mais su ma procureur bi fii du xaar tutelle bi. nga xam si nga moom. Euh, ministre la justice moo koy jox instruction. ministre de la justice jox instruction. Ah, li ma la war a wax ñaar fukki rapport yi euh, of nag ña nga ca taabal. Hmm. ñaar fukki rapport madame Ngom ba mu taa dana dem te joxe na fa huit juróom-ñett. Hmm. ak ñett yoo xam ne pare woon na. ba ba ki ko wuute ñëwee dafa am yóbbu. mu fukki benn passé muy xaw a a mel ne ku dingat loolu moom procureur bi. waaw ba tey. Hmm. kee ba mu ñëwee te léegi daal ñaar fukki ñaar fukki rapport wala fukk ak juróom-ñeent ña nga ci table procureur nit ñi nee nañ ak li ñu ne PAP cellule nationale de traitement des informations financières du hmm, CENTIF. def man fa loolu juróom fukk wala juróom benn fukki rapport ak yeneen ak yeneen. Hmm. lépp ma nga ca table yu bare bare bare ya nekk ca suufu ca coñjul président de la yooyu yëpp kenn traité wu ko. tey juróom-ñetti rapport yi rapport de compte nar a kii nit ñi man ça ne m'a pas dérangé. parce que du mujj fenn. commission bi ngay wax. waaw ah, laajul commission oh waaye bala ngaa def commission. nga bàyyi pour ñu vérifier la par li jënd lii fi ne ba ah, pare. c'est plus logique sénégalais yi quand même nanu bàyyi nax. nanu bàyyi nax bala ngaa def commission di seet lii fi ne na ko lijjanti ba pare waaw mais mais mais mais mais tonton bëgg naa ñu dellusiwaat un peu ci kaaw euh, euh, Pape Ibra Kébé boobu nga xam ne moom lañu ne moo doon chef de mission euh, bu bu of nag dénkoon liggéeyu Euh, saytu waa kudd bi hmm. moo def euh, rapport bi gis nga boob ba léegi hmm. euh, ni ko yi di dingatee Boun Abdallah moo njëkk a wax ne franco c'est un franco sénégalais déedéet moo dafa ne français la wax français waaw mais en réalité dafa ne président dafa dem ba France mu jël fa français waaw ah. moo ñëw moo ko defal lépp ab français la wax ah, waaw foofu mu dafa juum jee <laughs> juumut moo ko tey moo ko tey waaw pour pour jaxasee xel yi xëcc tuuti la fibre nationaliste mais donc ñu euh, euh, euh, mais gis nga après moom ba mu waxee loolu gis nga après fan yëpp ñu ngi génn ci presse bi. Mhm. ay mail yoo xam ne. Mhm. dañ ne waajooy kebe moomu moo ko bind Nafi sama yaay jooju di ko wax ne ko genre daal que maa ngi kooku c'est un auditeur de haut talent. Mhm. expert ci affaire enquête ay yi. kii financière euh, blanchiment d'argent nangam nangam expert de talent la de mhm. haut bi ko na fi jël na fi dafa jaar ci cabinet de ressources humaines wutal leen ma koo xam ne kii nii lay mel nii lay mel nii lay mel nii lay mel dafa am département moo ko war a moo ñooña ñoo gis ba ne kii day jox ko euh, euh, procès kéem ba comment ça ba ne kii day jàpp nañ ne mën na ko mhm. ba mu ñëw. mu demande disponibilité fu mu nekkoon. ba mu ba déglu mm. yi nga liñ ko doon fay fii. Mm. c' est le tiers de ce qu'on lui payait mm. waaye moom il a accepté ce sacrifice. bu ko fa doon fay ñett fii benn lañ ko fi fay. Mm-hmm. mais xam ne day day day liggéey suñu réew. Mm-hmm. bon kooku xam nga ni bon dañ dañu wax. Mm-hmm. bi mu delloo léegi rapidement la waxoon donc mu ñëw ba mu daataan ñëw sax defal na fi séminaire formation. OFNAC euh, personnel nag defal na leen séminaire. war ñu jub juboo ñu jël ko. moo jiite woon commission boobee. dana la wax li tax mu dem. waa ji da ko doon saaga téléphone. waajam aan da koy saaga man ab président ma teg li ma man xam naa ko ñeme naa ko. bien sûr mënaloo ma dara nangam nangam Abdoulaye Diallo ministre de l'intérieur la sama d'ailleurs sa vol war ngaa dem béréb sangam sa vol nangam nangam la pour te dire xam naa sama lépp. di ko tiital di ko tiital. doy yemul foofa bu doon wax. ñu ne eh, Mody Niang mi day wax rek. dëkkoo koo bind lettre boo xam ne bii. moom àll da koo bind lettre boo xam ne weñu ca la daanu. président ma ko bu topp. tontu rek de façon technique. ñu demee ba enquête bi mu xam ne léegi mbir maa ngi bëgg a euh, mu lank nanguwut wuyu te loolu c'est très grave OFNAC boo seetee loi nag woo la enquête la ñëwoo c'est dafa garaaw a garaaw a garaaw moom lank na ñeneen ñi ñu war a woo mu ni leen ku dem daanu daal ji nga ñamu yaakaar parce que ci dénonciation la jóge waaw ñamu yaakaaroo ne moo ñoo dénoncé ne da leen a jële fañ nekkoon dem def leen ci bureau defatuñ fa dara na nit ñi xam hmm. kooku nag la ab président de la république les deux personnalités les plus élevées de l' muy président de la république ak Boun Dionne hmm. ñoom ñoo taxaw jëlal ko di ko défendre publiquement alors que ah, l'affaire est entre les mains de la justice mais avant défendre bi kay oh. ministre bi ñu ko doomee nag waaw Sénégal yi déglul ak gun fa Sénégal yi dañ xam loolu le président de la République et le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République jóg publiquement jël fait et cause pour un délinquant présumé dont l'affaire est pendante en justice loolu na ko Sénégal yi xam mm-hmm. et bon joon boobu ngay wax mm-hmm. dafa ne nit daal nu ko neex mel wala nguur man yàlla ba ma yàlla suturaale mosuma cee jaar parce que li ci ne xaw ma lan la waaw dafa dem ba France mu jël fa ak ni moo ñëw moo ko bindal lépp moo ko bindal rapport te gis nga relation yu mag a mag ñoo nekk seen dig ñoom ñaar diggante joona Ibra Kébé papa Ibra Kébé nga ne nga bu Pape Ibra Kébé ñëwee Sénégal daf daf koy nuyu balaa ñibbi da koy da koy da koy da wax déglu ma la Pape Ibra Kébé primaire mi ngi ko jàngee eh, Kaffrine ak collège dem lycée Kaolack. waaw ah. def fa bac université Dakar gi mu mu ñëw ba pour deux années dëgg diplôme euh, universitaire général nangam nangam ca temps yooyu nekkagul Cheikh Anta. 91 mm. wala am yu jafe-jafe. année ba ñu invalidé ko. mu dem Strasbourg daje fa ak jàpp ma seen tur waaye ñu ne ot nangam. ministre amul ot nangam ot. Strasbourg fa fa la ot bàyyi ko fa moom mu ñëw Lille def fa ñaari troisième cicle jóge fa dem Paris Dauphine def fa thèse am ba muy présenté thèse ba euh, ngoor Sasson mu ngi. Boun Dionne mi nga fa. waaw Bour Dione war na taxaw kon dëgg sarax sénégalais naan un français man ko xamul voilà lool loolu laa la bëgg a wax Bour Dione lii mu wax lii dégg nga li ma na ko sénégalais yi xam ah. keroog ba muy def thèse Bour Dione était ba dégg dégg lu ma wax la li ci gën a garaaw Abdou Abdou euh, euh, um, Macky Sall dafa ne mbir mi da koo dégg rek ci kii yi am réew kenn du ko jiite ba pare di wax di wax loo amut loolu xam nga ne mënta ne xam nga ne président loolu mënta ne non c'est pas possible li tax ma wax la ko Nafi Ngom Keïta dafa doon koo xam ne kii lu nit ñi luñ jóg teg ko hmm. te hmm, mënta wax boo mënta wax luñ jóg toog hmm, la amel nañ ko ak maa la wax réew mi xam naa jot gi mayunu ko waaye nit a ngoog ku am ngor ku xam boppam ku mën liggéey ku bëggum réew sama yaay ju baax la ñu def ko bañ ko jëlee of nag ku yiw bañ man maa ko bañ ko jëlee of nag loi bi dafa wax bu ñu la jëlee dañ lay delloo fa nga newoon. Mm-hmm. nekk na fa inspecteur général d'état huit ans. Mm-hmm. ñu def ko vérificateur général mooy chef. Mm-hmm. pendant sept ans muy quinze ans. mu jóge fi ñu neme ko foofa mu jeexal mu bëgg di président ne bu mu fa dugg. loolu na ko sénégalais xam. nañ ko nañ ko wutal bureau annexe bureau annexe bu nekk. waaw toroxal la nga loolu li ma la inspecteur général d'État ji bi mu koy def. ñeent fukki candidat la ñu woon ñeent. Mhm. moo ca raw ba moom moom rek lañ jël. tey jigéen moom rek. Mhm. senegal yi nañu xam seen bopp na fi Ngom Keita. kon ameel noonu la demee ameel nañ ko àq. Mhm. te waatal naa la ne Sénégal gii bu fi bu bu ko ñu jub jiite woon ñoo xam ne ñii li ñu nekk mat nañ ko. Euh, Séné rekk euh, euh, rek tax a jóg. lu jëmale senegal rek leen tax a jóg. Nafi Ngom Keïta elle serait au cœur de l'administration. waaw loolu